sëriñ bi Mbàkke li nga wax lépp dégg nañu ko loolu danoo yaakaar ni liggéey bi noonu ñii noonu lañ ko sant sëriñ bi bi mu ko déggee rek da cee am mbégte lool wax ni na ngeen ma fa demal ci sëriñ bi nu mu ko bëggee rek ñu waxee ko ko noona ñu fas ko yéene defee na mu ko bëggee ana loola nag mooy lan sëriñ baa ngi woo ñi nga xam ne seen wayjur yi dañoo àndoon nag ak Cheikh Ibrahima ne ci ginnaaw sëriñ Touba mu ngi leen di woo ci liggéey bi ndax ñoo ko bokk kon ah sëriñ bi li nu bëggoon sëñ sëñ Mamadou Lo yow mi nga xam ne yow lañuy ñuy jox loolu nga am bis bopp danga nga ñëw ñu bokk toog waxtaan seet nu ñuy programmer liggéey bi nu ñu koy doxalee ndax moo gën nu jóg rek soobu ci liggéey bi ci façon boo xam bii ni bokkul na mu war a doon ndax Cheikh Bass mi dégg ngeen mu wax lu mu ci mën a doon rek borom dëkk bi ku wormaal doomu aadama rek la bëgg kon li ñuy saafara it nañ ci boole di suturaal doomu aadama yi te loolu su waxtaan amul ak diisoo manees naa jëfe bëgg-bëgg te fekk àndut ko xam te lool mën naa indi xawi sutura kon sëñ Modou Lo ñu ngi lay woo ci loolu wax ci boobu Mbàkke jot sugu dal noonu jekk na noonu yàgg yàgg yàgg yàgg bu yàgg lañu nu jekk ndax noonu digalul sëriñ bi rek la ñuy déglu fu nu toll fas ko yéene jëfee li mu bëggee ni mu ko bëggee fas na yéene mu amee noona ndax suñu bakkan dañ ci gar dégg na sëriñ bi li mu waxe dóorluwu reyluwul gaañluwul bëgg na daal li mu bëgg ci dëkk bi mu am ci dëkk bi sëñ Mountakha lii mu wax da ci ànd ak pastin mhm. ndax te sëñ Abdoulaye ko yeesal mhm. am lu mu ci dolli sëñ Abdoulaye dolli wu ci woon ndax woote bii mu woote woo yoonu mu yépp ju daje mhm. sëñ Abdoulaye dolli wu àgguloon eh, foofa kon lii muy def lu lu ko ñor la te lu ko ñor nag moo war a ñor murit yépp kon sëriñ bi noonu waa kër Cheikh Ibrahima njaboot gi daal jekk nañu sëñ daam yow bi nga xam ne yow lañ teg loolu ci sa loxo yi jekk nañu noo ngi lay déglu soo ñëwee noo ko bëggee nu programme ko noonu defee ko noonu ba mu gën a rafet gën a sell ba dëkk bi kaaraange gi ñu ci bëgg mu am ci te dana ci amee ndax lu sëñ bëgg moom faaw ma